Rewmi 24 dal leen ak jaamu mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo siyaar leen vendredi 30 juin 2023 Ousmane Sonko barricade ne def nañ ko ci buntu këram daal daanaka rek mat na weer lii di ay avocat a gisante ak moom waaye daal lu mat ay semaine mu ngi nii leen di wax ne loolee mënu la nekk waaye kii di euh, maître lii di avocat ci Ousmane Sonko ma ngay xam le ne jox na xaatim bu koy a gisante ak Ousmane Sonko daal dina gisante euh, moom mooy xam le loolu moom moom sax di ay doomam ak ay sëtam daal gis nañ ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ci gisin boo xam ne daal nit la ku gëm yàlla waaye nit la ku am personnalité waaye nit la tamit ku gëm natt yi ko yàlla teg moom moom di maître lii ma ngay xam le ne da barricade boobu nga xam ne ne def nañ ko ca buntu moom moom di Ousmane a boobu daal moom moo xam le yile ci Ousmane Sonko daal nee na ma fekk ci condition yu baax macha allah di nit ku gëm yàlla nit la koo xam ne daal dara rek yitte lu ko lu Sénégal may maître Ciré Clédor Ly moom moo wax lii jaa ngeen jëf mbokk yi